العسانا سيدة للمحسنات مريم قوت المقينا عند الذي لم يدرك فسبزت يا سيدة asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu mbokki jullit yi mbokki taalibe yi mbokk yi nga xam ne yéen a ngi ñuy seetaan ñu ngi leen di nuyu bu baax di leen siyaar bu baax baax di jiital ci nuyoo beeg siyaar bi Cheikh Mouhamadoul Mountakha di ñaan suñu borom tabaaraka taala mooy ko fanu gudd ko wér ba mot leel ko mboolem yéen ji mu yéen ngi liggéeyal ko Serigne Touba te ñun taalibe yi ñu ànd ko ak moom naka noonu it mbokk yi lañ koy ñaanalee Serigne Mouhamadoul Mountakha Diakhaté mi nga xam te ñu ngi àddoo fii ci biir këram Euh, ñu ngi ñaan moom itam suñu borom defal ko fan guddi ko wér noonu la ñuy ñaanale kenn ci njabootam muy soxna maam Boussa Mbacke euh, moom Cheikh Mamadou Fadel moom itam ñu ngi koy ñaanal bu baax a baax di nuyu mboolem mbokki taalib yi nga xam ne yëpp ñu ngi seq ak ñun jotaay bi xam naa rek euh, ngir leeral ñu ngi bàyyi ko ci daar Hizbut Tarqiyyah ko Xuddus ku ne xam na ne waxtu wi bunti mosaan àgg Euh, am na taxawaay bu am solo boo xam ne daara ji yàgg na ko séq ak euh, waa kër Seex euh, waa kër soxna maam Bousso mu jëm ci màggalu Kazu Rajab gi loolu tax na te incha allah ñu ñëw fi ngir fa yéene daje ak ñoom ngir séq ay waxtaan yoo xam ne lépp rek mi ngi aju ci liggéey bi bi ma ñëwee it maa ngi ànd ak ay jëwriñ yoo xam ne ñoom itam ay jëwriñ lañ ci daara ji ku ci mel ni su ma tuddee sëñ Mbàkke Seck sëñ Abdul Xafour Gay ak sëñ Anta Ka rek daanaka yóbbaale naa ñëpp bi ñëweet fekk nañ fi ay mbokki taalibe yi ñu daral nañu daral bu am solo Euh, fekk fii soxna si moom itam euh, ku ne xam na euh, ndaka jekk taxawaay bu am solo bi mu yàgg am diggam ak daara ji mu nekk kóllëre gu yàgg goo xam ne mi ngi doore woon ci Cheikh Mamadou Lamine Baara Mbacke moom mu Mamadou Fadel jamono ji mu nekk Serigne Touba moo digaloon daara ji waxtu wu ñu agsee ci màggal gi daara ji ñëw ci soxna si ànd ak moom liggéey bi boobaak léegi nag daara ji at mu nekk mu ñëw fa yéene jëfi ndigal loolee ren it tawfeex ji ci yokk mooy Euh, ki fi nekkal sëñ Tuubaa di Cheikh Mamadul Muntaxa euh, yeesalaan na ndigal li ci daara ji euh, nga xam ne kon wóorteef la ci daara Hizbut Tarqiyyah daara Xuddoos ndaka jekk ni nga ko baaxoo defee bi yëf yi tàmbalee ba léegi ñu woyale ko noonu daara ji it niñ koy leeralee mboolem engagement bu mu yàgg jël rek ren dañ ko yokk waaye dara wàññikoo ci lu jëm ci wàllu aménagement bi wàllu cuisine bi ba ci lépp loo xam ni programme bi daf koy soxla rek incha allah daara gi taxaw na ngir fa yéene ànd ak euh, soxna si ci loolu waaye ànd ak mboolem waa daayira bi nga xam ne ñoom ñëpp ñoom la ñuy fas yéene àndal liggéey bi. bis bi nga xam ne moom lañu jëm soxna si ñoo ngi yalwaan ci sa barke sa jur waajur wa ak jëmmi sëñ Tuubaa ji ñoo am ci ndam waaw loolu moom dañ koy yalwaan moo tax kàddu yi du gudd ndax sa waajur wa Cheikh Mouhamadul Fadl sëriñ tubaa dafa waxoon ni lu nekk ci man. danaa ko def ci moom lu ci xajul danaa ko ci xaj xajal loolu la waxoon te itam wuute wuñ wuutale la ak ak ak jëmmam ja ndax Sëñ Musaa Ka dafa waxoon ni jaan ju góor ak jaan ju jigéen dangar ya ndax luggukat xàmmee na leen ca jat ya gu mu ci doon boo ko luggul mu rey la ku yeb jigéen ñi Bàmba doo am yàlla. asalaamaaleykum wa rahmatullah aouzu billahi min acheytaani rajim wa inni auizuha bika wa zurriyataha min acheytaani rajim rabbi aouzu bika min hamazati shayatin wa aouzu bika rabbi an yaxduruun asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu bokki jullit yi ñuy teewlu bokki taalibe yi ñu ngi leen di nuyu ku ci nekk ci sa tur ak ci sa sant di jiital ci nuyu bi ziar bi asaahibul fadila Cheikh Mahamadul Muntaqa mi fi nekkal Serigne Touba di ko ñaanal suñu borom yàggal ko fi ba li mu am yéen a liggéeyal sëriñ bi ci lislaam suñu borom may ko kattan ak gudd fan ak wér ba mu mën koo def ci teeg ba kanam ànd koog mboolem taalibe yi ak mboolem jullit yi waaye di ko siyaare bu baax Cheikh Abul Baraka mi fi toog jataayub Cheikh Mouhamadoune Fadal di ko ñaanal suñu borom yàggal ko fi ba mu àggale yéen ay Cheikh Mouhamadoune Fadal di leen nuyu di leen siyaare bu baax ci keppaar gi nga xam ne kenn la ci keno yi Cheikh Ahmadou Bamba Xaadimu rasul kenn la ci jàmbaari lislaam kenn la ci tànnee fi Serigne Touba yi nga xam ne Serigne bee leen tànnal dëlale leen boppam fii ci dëkk bi ci wetuk boppam muy Seydina Amsatu Jaxate mi nga xam ne mooy léppi Cheikh Ahmadou Bamba Xaadimu Rasuul yoraloon ko dëkk bi ci kem bi mu ko sancee ci njaboot gi li demee na diggante jàng ak jàngale la ko féetale loon fii digganteem ak sëriñ bi lu baree baree bari xew ci sëñam satu bokk ak soxna Fat Jaxate mi meññ sëriñ Saalihu ñaari wayjur bokk kook soxna Mariama mi meññi Cheikh Soxna bi ak Cheikh Abdoulaye Lahat ci ëttam bi lañ leen di nuyoo te di leen siyaare ànd ko kuréelu waa Hizbut Tarqiyyah Touba Daarul Xuddus mooy ndaw yi nga xam ne dañoo takku seenu yëngu ak seenu dal lépp ñu jëmale ko ci xaside yi ba am ci garaat boo xam ne ku tudd sëriñ bi tudd xaside yi danga leen tudd ñuy waa Hizbut Tarqiyyah Daaru Xuddus di leen nuyu te di leen siyaarati di leen ñaanal tawféexi sëriñ Tuubaa waaye di leen nuyu ci kanamu soxna bu so mi nga xam ne di doomi ma Mamadan Faadal yàlla dogal ci ndigalul sëriñ Saalihu joxoon ko sëriñ Modou Moustapha fa Falilou ak dikkam fii ci keppaaruk sëñ Amsatu Jaxate di kenn ci njabootuk Sëriñ Tuubaa nekk ak jëwrinam ji nga xam ne moo fi toog toogaayu Seydina Amsatu mu Cheikh Mamadou taxaa Jaxate mi nga xam ne ñu koy sant di ko gërëm di ko ñaanal tawféexi Sëriñ Tuubaa wàcc ci kawam ginnaaw bi yàlla dogalee soxna si ab liggéeyam sama borom tuddee ko fii ci ëttam Cheikh Mouhamadul Amin Baara mi nga xam ne mooy sët bi njëkk a wuutu Serigne Touba moo joxoon booba ndigal waa is bu tarxee daarul xuddus fukki fan ak ñaar fukki fan ak juróom-ñaar yi nga xam ne ci la ñuy màggal Cheikh Mamadan Fadal woo leen ba ñu ñëw ñoom ñëpp ci seen kuréel gi xamal leen na leen màggal gii di 15 Rajab saa yu jotatee na ngeen dem ba ci kër soxna Mambuso di sama rakki bopp di kenn koo xam ne ci jigéen ñi Serigne Touba yi ñu gërëm ci la bokk ci saali xaat yi sëñ bi doon ñaan sama boroom ci la bokk lu ngeen di defati yéen def naa ko muy seenu cër féetewoo leen ko ba nam fiy jógee moom Cheikh Mamadou ndigal loolu yi loolu ngeen wëyal Cheikh Sidil Mokhtar juróom-ñaari at yim fi def yàlla dogal ndigal li saa yi jotee dañ koy yeesal continuer ko ci moom ba ki démb ci màggalu poroxaan gi la Serigne Touba Cheikh Mamadou Mountakha ñu ngi koy ñaanal mu yàgg fi yeesalaat ndigal li xamal leen ne leen màggal gi gannaaw tàmbaliwaat nañ ko na ngeen ko daan defee na ngeen ko daan na ngeen ko defee na ngeen ko daan defee foofu ci kër Soxna Badi te xam ne loolu cër la boo xam ne day firndeel ne lépp lu fi Serigne Touba bàyyi moo koy wutul boppam te ñun de biir nañu ne yéen ñi nga xam ne yéenay waa ahlul xasida nga xam ne sëñ Tuubaa leen tànnal boppam ndax wax na ne wajaal kitaabati ka kulli mursali da ngeen a doxul ba àgg ca waaye sama benn xëy bayitub xasida bu ne moo ëpp doole ab yonent yooye nag ku yàlla dogal sëñ bi nàmm sag ruux ak sa xol ak sa yitte jëmale ko ca loola rek muy sa yéene ci liggéeyal ko kooku war ngaa xam ne sëñ Tuubaa dalaa tànn kon bu ngeen ko jëmalee ci ëtt bu sëñ Tuubaa gërëm rëdd ko rëddal ko ci tànk boppam teg fi sëñam sëtu jaxate ngir mu wattul ko alxuraan kon jàpp leen na welekaanu alxuraan joojee mooy mbootum xaside moom la leen sëñ Tuubaa faye tey muy seenub liggéey ci seen naam sëtu ñi ngi ñaan arafub xasida bu mu mën a doon guddi googu nga xam ne ci la yonent bi ràññaane jóge fi dem jëli xéewal yi ñu am ci lislaam lépp lu ci yàlla di séddaleeku yiw yàlla bu ci kenn ëppale waa Hizbut-Tarqiyyah Daarul Xudoos xam ne soxna sii ngeen àndal day Cheikh Mamadou Fadal moo ko jur waaye soxna Aïchatu Gaawaan di soxna Assu Gaawaan ñëpp xam nañ ne maqaamam doomi sëñ Tuubaa raw na lu ne soxna Assu Gaawaan ko yaral boppam fonk ko fonk goo xam ne yemulewu ko kenn te bari na ñum yorandoo woon ak moom ca daara ja waaye yar bi ak nuru gi way jur wi bëggigu lu baax teel gee am jom xam gi boppam loolu jikko yooyu mu teel a làmboo ci ndawam la ko soxna su taqoo woon ba lu mu masaan di defal gone boppam moom ñaari cër lañ koy sédd bu waxee mu ne ko borom ñaari cër nga ndax sa baay yëmut ak kenn te yow da nga am sa cëru bopp kon nag loolu ku ci sëriñ Tuubaa boole jàppal ne sëriñ bee la ko liggéeyloo tey bu leen ci am dara lu ngeen di ragal ndax ci ndigal ngeen ko teg maqaamam doomi sëñ Tuubaa maqaamam xalifam sëñ loola wute maanaam ku kuñ ne yaa fi toogal sëriñ bi yow jox dara darajey sëriñ bi te ba ngeen koy jëf Cheikh Mouhamadul Amin Baara la yàlla dogal mooy sëñ Tuubaa te it Cheikh Mouhamadul Muntaxa lépp lu fi ay magam def bu ñëwee da koy yokk nii mu ko yaatale joxe noonu digal kon ñi ngi ñaan màggal gi ñu ngi koy amal altine 28 février fii ci kër Cheikh mun Muntaxa Jaxate ci Touba mosquée di ci woo mbooleem jullit yëpp mbooleem tay yi ñaanal kep ko fi tew di ñaanal kep ko xamne ne am nga yene teew tew kep ko ne am nga yéenay liggeel ci Serigne Touba yalla na la ci sama borom may lu kawé sa njort yalla nañ ko yàgg tewé at yu bare bare khassida guñ fi jang ak alcorane ak manam bernde ki teranga dal yalla na lépp doon aw yu ak ngeenel ak ngeeremul Cheikh madou Bamba sotti ko ci kaw soxna si ak njabot gi sotti ko ci Cheikh Ahmadou Muntaxa ak wa kurelu Hizbut Tarqiyyah Daaru kenn ko ci nek Serigne Touba fakal sa eutu bop ba lu xewati nga man ko defal serigne bi wassalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu خبيلا ومن جدك المسلم لك هنيئا خذ بلا لدن كما تقبلا عندك ريح من خبيلا من جدك amin sëriñ Fallou amin fajoo mi a bari waxtu amin amin yàgg bi loolu